di nuyu rek kilifa jotaay bi mu jot nañu suñu nuyoo ci suñu sëriñ suñu yaakaar sëriñ Cheikh moom si Abdou Khadir muy sëriñ Sidi Mbacké moom it ñu ngi koy baax di ko siyaare di ko ñaan yàlla dolli kattan bi ak wér gi ak man gi guddal fan bi ba lii ñu nga xam ne moom lañ ko teg ci kawam mu yàgg koo def muy liggéey bu rëy bi sëriñ Abdourahmane ne nee na ñu ngi sant bopp yëpp dañuy bañ a guddal waaye kon dañuy topp kilifa yi fi ne yëpp waaye délégation bi nga xam ne ñoo ànd sëriñ si bi tuddee si ci rek bu ne sax buñ tuddee bokk yi nga xam ne ñoo ko bokk waa kër sëriñ Mbacke Bousso yi ak waa kër Serigne Saabou Sy ak bokk yi nga xam ne ñëpp rek bu ñu la tuddee day bés. ñuy bëgg a xamal ne Serigne Sidi Cheikh Abdourahmane nee na am na mbégte mu rëy rëy ci bis bi nga xam ne moom ngeen yëkkati defee ko fii ci kër Serigne Bara nee na sax. seetlu na la musta am directeur boo xam ne kawe na na sa tey ji mus ko loolu la ko waral mooy yi junj nañ ko sëriñ Cheikh Mouhamed Bousso bii tudd na ko Cheikh Mouhamed Lamine Diop moom it tudd na ko sabab yi dafa bëri yi ko sabab ba tax njaboot ak sëriñ Abdou Khadir kàcce boppam di sëriñ Cheikh. yëkkati guddi gu toll nii yëkkati bis bu mel nii jagleel ko njaboot ak sëriñ Baara yéen te sëriñ Abdourahmane nekk bopp loolu rëy waaye sabab yi bëri na bokk na ci mbokk jullit yi ku na xam ne ne sëriñ Abdourahmane ñeen sëriñ Baara ñeen ak sëriñ Abdou lañu bokk ci ak mbokk ku dégg lu mel nii du la yéen wax nañ ko léegi ñoo bokk benn waajur bu jigéen ndax seen ñaari waajur bu jigéen yi ñoo bokk benn baay loola dana ci ak mbokk waajur sëriñ Abdou Khadir bu jigéen ak waajur sëriñ Baara Ñang bu jigéen ñoo bokk benn baay boo demee ci seen wàllu baay it waajur sëriñ Baara Ñang muy njóobu ma ak Serigne Touba seen ñaari waajur yi ñoo bokk ndey ak baay kon ñoo bokk baay ñoom ñaar ñoo bokk ndey loolu kon bu yëkkati bis bu toll nii fab ko jagleel ko ñoom la leen war a ko ba mu sëkk ci mbokk ci kóllëre ci lépp waaye mbokk googu yëmutoon ci diggante sëriñ Baara Ñaŋ ak sëriñ Abdou Khadir waaye li ko daal dundal li ko mbokk yi jërum ñu si guddal lañ ciy firndeel mu doy ñaari biir yoo xam ne day firndeel ne ñoom ñaar seen couleur gi couleur bu am solo la sëriñ Abdou Khadir ku ko xam xam sëñ Muudu Mbàkke na mu ko bëggee woon ak na ko soppee woon ba am na mag ñu baax ci njabootu Serigne Touba yi sax daana wax ni ku bëgg am ngërëmal Serigne ngërëmal Serigne Abdou Khadir sàkk ko ci Serigne Modou bi mu yëkkati Serigne Modou Serigne Abdou Khadir di ko jox Serigne Bara ci ay juróomi at rek lay toog mu yar ko jàngal ko alxuraan ba man ba mokkal ko bind ko mu sa ko delloo lu mu doy wane la seen diggante ñoom ñaar diggante bu ratax la woon bu rafet waaye yëngu ca sëriñ Baara Ñaŋ sëriñ Seexam Seex bi bi sëriñ euh, Sadeex Ñaŋ nalawee toog bi fii ci pénc mi nett li loo xam ne nee na sëriñ Baara la ko Seex Baara bi nangoo fab ab taalibe sëriñ Baara ñooy ñëw ci Sëriñ Abdou Khadre ne ko damaa bëgg a jébbalu ci yow mu nangoo ko mosu ko defal kañ ku ne xam ne Sëriñ Abdou Khadre a ne mu nangoo ko njébbal ko ci loola ko loolu ñaari sabab yi nga xam ne sëriñ Baara bi ñu jógee ku ne xam ne ne njabootam ji yëpp. Cheikh Abdou Khadre la leen tey ko ñoom ñëpp Cheikh Abdou Khadre la leen tey keneen ku si génn kër googu rek mooy dangaa wuute ak ndigal kon ñu ñu kóllëre googu nga xam ne moo doxal ci seen biir muy kóllëre bu rafet kóllëre koo xam ne bu am solo la ak mbokk gi bu ngeen yëkkatee bis bu toll nii fab ko jagleel ko njaboot ak si baara yi Cheikh Rahman nee na amul lu leen fayee lu ñaan rek ñaan suñu borom yàggal fi sëriñ Cheikh ak Cheikh waaye yàggal fi boo leen njaboot gépp loolu rek la leen mën a du ay teraanga du baas prophète du ay lan ñaan rek def na ndax amaguñu mën a xayma kon loolu kàddu yi la Cheikh Ibrahima waxoon ci kàttan ne mi koy jëmee ci njaboot ak Serigne Abdou Khadre gi di leen sant bu baax di leen gërëm bu baax di wane ne kat bis bi rëy na ci moom lool ànd ak njaboot ak suñu baaree yëpp gépp la njaboot ak suñu baaree yëpp ñëpp am na ci mbégte bu rëy ñoom ñëpp jigéen ñi ak góor kon loolu su la ñuy gàttalu ci diggante bu nga xam ne moo waral sabab bis la sees mooy suñu parlement nee na mi bokki boppam yi nga xam ne ñoom ñëpp dañu bàyyi lépp ñëw teewu ci bis bii tàmbale ko ci buñ ne sëriñ Amar Bousso mi xarit Sëriñ Mbàkke Bousso rek yóbbaale la ñëpp buñ ne waa kër sëñ Saa Buso sëriñ Bàcc Buso ngi nii toog yóbbaale na ñëpp buñ ñëwee waa kër Maam Mor Jaara sëriñ nii toog doy sëkk ñëpp a ngi fi toog sant leen ñëpp gërëm leen ñëpp sant soxna yi nga xam ne yii ci gannaaw ñoom ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax a baax di sant taalib yi nga xam ne ñoom la àndal liggéey bii muy liggéeyal sëriñ Tuubaa waa Baxdaad yi waa Dindi waa Fo waa ñoom ñëpp mu ngi leen di sant di gërëm ci liggéey bi nga xam ne da ngeen koo ànd ak moom ci liggéey Serigne Touba ci ngeen yokkat mukk ci liggéey ànd nag yi nga xam ne mooy mbokk ak seen baara yeeg ndax xam na ne ba ko fi yàlla wuutalee ba léegi moom ci lépp yéen a ànd moom ci lépp kon ñu di sant moom it gërëm bu baax. lañ tey mu tëjee rek mooy sëriñ Sidi yàlla yàlla yaakaar na dañoo bëgg nga seedeel si kàddu yu seed yi nga jotal ñu ko si yàlla sëñ si am si yàlla ne ko sëñ Abdourahmane njaboot ak si mbaare ne gépp gërëm nañ ko sant bi ci taxawaay boo xam ne taxawaay ci kër gi taxawaay boo xam ne taxaw na ko ci biir bopp su amul ñu ñun mbokk yi dara luñ koy xeeb ci diine wala ñu ko xeeb ci jikko loolu kon na ñoo ngi la koy sàkku ci yow nga seedeel ko kii nga xam ne mooy kilifa kër gi muy Serigne Cheikh na ko gërëm nañ ko sant nañ ko ñaanal yàlla yàqal ko di Serigne Mahmoudane Bousso ñuy toog a jël bi sax moom it sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp loolu daal ci kàttan bokk jullit yi mooy kàddu yi nga xam ne bëggoon na ko ci jëkkati ci tuuru Serigne Abdourahmane Niang xëy na su ma ko jege sax dana gën a wax lu raw lii ndax lii ci xol bi fees na dell man suma bopp lot naa ci génne fan yi yëpp noppaluwul guddi noppaluwul bëccëg waxtaanam lépp ci bis bi rek la bis bi rek la kon loola yaakaar naa lii ma ci wax lu tuuti la ci biir xol ci lim ëmb ci ak cant ak ngërëm ak mbét sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp wa aleykum salaam wa wa barakaatu waaw ñu ngi sant mbokk yi nga xam ne ñooy ñëw doon mbokk ñii nga xam ne ñooy xaral yi waa presse bi nga xam dañoo ñëw ak site yi fi ñu ngi leen di sant di leen ñëpp sa leen sant di leen gërëm ci taxawaay waaye nag liggéeyal day koo xam ne ku mat a liggéeyal la muy sëriñ Bara